sunu Sunugal 24 maa ngi leen di nuyu di am mbégte lool ak bànneex ci dellu waat di àndaat ak yéen ci biir kër Mbaye ni ñu koy defee sa su ne wax naa leen ko souvent rek dañuy am mbégte ak bànneex bu fekkente ni euh, dañuy dalal nit di ko dalalaat dañuy wax ne loxo bu yàggee ci mpax jàmm la fa fekk te it nag ki nga xamante ni moom la ñuy dalal yaakaar naa ne nit ñi ñu ngi koy bëgg a xam à travers biir kër Mbaye waaye di ko bëgg a xam itam ci yitte ji nga xamante ni daf koy def euh, ci doomu aadama yi ba tax na lu ci baree bare bare yàlla da ko ci may ndam tabaarkàlla macha allah mu nekk nag koo xamante ni eh, kenn dootu ko présenté fii ci sunu Sunugal 24 <coughs> mbokki internet yeeg mbokki bitim réew yi ñëpp tàmbalee nañ koo xam rawatina ñi nga xamante ni dañu yor ay jàngoro jàngoro yi nag bari lool ci réew mi jàngoro yi yaram jàngoro yi biir jàngoro yoo xamante ni da ngay dem ba hôpital docteur yi duñu xam lan moo la dal wàllu rab nekk na loo xamante ni itam sonal na askan wi lool waaye am na loo xamante ni yëkkati na ko fi bii passé yaakaar naa ne doyewul muy faj gàcce loolu lépp dinañ ci ñëw ci biir émission bi incha allah àndandoo ko ak yéen kan la ñu àndal Serigne Bassirou Ndiaye baax bari bokkul maa ngi lay nuyu di la ziar la bàyyi nga nuyoo mbokki internet yi. Euh, waaw kay kon baax incha allah ñu ngi lay siyaare waat bu baax a baax <laughs> ñu ngi lay siyaare waat bu baax a baax. Mm-hmm, di sant bu baax siyaar euh, bi ñu di ci jiital. sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke ak sëriñ Moussa naawel Mbàkke ak sëriñ Moodu Abdoulahi Mbàkke ah, di santaat yàlla bu baax di gërëm ñoo ñi ndax wala fi may dégg ñu ne kenn neetul kenn ku la jur ku la yar la ñuy wax su yar ba baaxee rek ka yar alhamdulilah ku xam ki la yarit buñ la ko laajee daanaka du jar ngay wax da ngay xam ne kii ku mat yar la mhm. ku mën a yar ko yar kon mat naa yaru yar mhm. euh, may santaat bu baax tey gërëm di dellu si cosaan mi mhm. xee sim naa a foog na sereer gid ma foog na sereer yaa rooga ɓaata in jam i mbogo ndax roog ndax sereer ka bugo pogum kon yaa rooga ɓaata in inchaallah nu ke i mbi'aayo rooga fi te jam ndaxam yangalaya mene purɓin we taxu wane defe o leŋ min mi salmini fulo mi salmini jolfo mi nodde foofu fof yo arsi allah jaaɓi mi accani hay nokku inchallah inchallahu taala dégg ngeen ko jaarati na fam daan jaar tabarkalla macha allah li mu indi tey itam yàlla na jaar fa mu daan jaar ndax askan wi ñu ci bari ci ñoom rafetlu nañu émission bi rafetlu ay jikkoom ak ay jëfinam waaye ba sax di ma ci gërëmaale ak di ma ci ñaanal damay xam ne nag yéen a baax ak moom mi nga xamante ni moo jub tey jubal te doomu aadama kenn mënu koo xam te léegi li ci réew mi kenn mënu koo wax waaye nag nañu segg rek te setantal tey ànd ak ñaari nit ñoo xamante ni dañuy jubal moo ñu gënal ànd ak fukki nit yoo xamante ni tabarkàlla dañuy teg jafe-jafe askan wi te loolu bugguma ko benn yoon euh, sëñ Bas tey dañuy ñëw ci wàllu jàngoro yi sëñ Bas ku ko xam ci diwaanu Touba. wala Thiaroye wala Thiès wala Mbour wala Pikine di nga xam ne sëñ Bass mii kat ci wàllu jàngoro moom la macha allah ci la ëpp li muy yëngu jàngoro nag nekk loo xamante ni lu bari la ci réew mi fi na li ñuy lekk la sunu doxalin la wala lan moo ko sabab. waaw ba tey wolof day wax ne lu indi nangam. Mm. nga ne xanaa lu yëngu lu nekk lu ko yëngal ëpp ko doore. Mm. jàngoro daan lañ ko bàyyi sunu borom mi ñu bind. xam ne moo ko indi. buñ ne yàllaa ko indi ba noppi nag foofu kenn dootu am lu mu wax dëgg la neexee nag ñu ne mm. li ëpp ci Sénégal mm. ci wopp siti moo ko yokk daanaka émeri yaag yeneen ak yeneen ak conséquences yu ëpp doole mm. kër yi tas yeeg ci seen bala mënu ca dara li ëpp moo ko def siti waaw man de jiiñ naa ko jàngoro yu bari mooy rey ñu ba ñu bari rey na leen. moom ba tey ñu bari bu xuusee ba ca biir ginnaaw ñu ngi dem dañuy door a tàmbali. Mhm. dina ca waxtaan tollu leer naa ñu lay doon ndax damay wax nit ñi ne leen. Mhm. Euh, del wax ne nii laa xame mhm. waaye nii la amee kenn du ko ne waxe ndax mën ngaa am ko ne déet waaye li ma xam ni ma ko xame laa koy waxe to samay wax itam Ah, santaat naa ci suñu borom ndax nee nañ ma dema cee dëggu mm-hmm. rax ci dool yi li ma la waxee doo ko laaj mm-hmm. soo ko xoolee sa bopp rek gis ko sa pekk ngeen dend kon boo ko bëggee dindi loo fi teg amoo ko mm-hmm. kon wolof ne ne ku ndox baax euh, tuuroo ñu ne an baax a des ndox bu tuuroo ñu an baax a des ma ne déedéet nañ rootiwaat kon nit ku nekk bu bañee ko bu kenn wax kenn du ko wax nañu wax waaye fexeel ba booy wax loo wax kenn du ko dindi mu jeex tàkk. lan moo ni muy def nit ñi moo metti jikkoom ak doomu aadama yi mm-hmm. moo xaw a diis. Mm-hmm. ndax nit ki nga xam ne dafay wokkate ci ta loxoom. Mm-hmm. di wokk ay tànkam. ak ndigg la yépp wokkatu boo xam ne saa yoo demee bu guddi gi màggat ñaare. ba nga dugal sa loxo ci sa xalante tànki moom. am na koo xam ne barke dem dafa maa wax ne ma. man damay wokkatu booy fecc booy fecc kon kookaa ngay bëgg dee mm-hmm. te yaatu na fi de mm-hmm. bu yàggee sa xarante tànk day am lu weex mm-hmm. bu yàggee sa baaraam yi day weex day xeeñ tekki di tooy di tooy mu toll xam nga góom bay tooy fu mu du neex du wokk te bay dàkk te yëgoo ko neexul kon wopp boobu xam nga du jàmm bu yàggee day jaxase sa bopp bi ub ko ràpp te sa wërsëg ca kankoon dal ca lay waxal Hmm? waaye waxuma kim dalul hmm. uf sa bopp rab ci àdduna nga doyal ko sëkk sa xalaat yëpp nga jàllale ko àlaxira hmm. bopp ba ubbu rab xel wi jaxasoo ngay taayal dem ba tànk yay metti ndigg lay metti ñu bëri jël ndigg luy metti nag dañ koy jël di ko atte fu mu dëkkut ndax ñu bëri dañ ne naan ndoxum siti moo la ko teg bu ñëwee bu indiwaale tànk yi metti ya ñu ne ak mm, mm, mm, dangaa jóg jógi liggéey boobu moomut ci lu bëri ci bitim réew waaw soxla nañ ci lu mel noonu. su la mu demee noonu. Mm-hmm. déedéet waaye nag bu ma ko dindee naa fi teg lu tax nit ñi nangu. Mm-hmm. bu ko fi tegoo rek nag duñ nangu ñoom la dégg nga mm-hmm. nga xam ne mooy jaxase xel di ko taayaloo di biir bi yuuxu borom di seere bopp bu ëpp ràpp wërsëg wu tëju yaakaar bi tas ci li ëpp te def soxna mel ni góor comme yow. wala nga tëdd sa soxla mu mel ni jigéen comme moom mm-hmm. loolu mooy manqué kàttanu góor ak manqué kàttanu jigéen mm-hmm. jigéen day dem bu du am benn yëg-yëg ci diggante wax sax jëkkëram mm-hmm. loolu loxositi ak moo koy indi góor day dem ba am benn yëg-yëg ci soxnaam loolu loxositi ak imarit moo koy indi bu yàggee nag mooy def loolu ñuy wax imarit bi génn mooy def comme lu mel ni tuñ mu ne bi waaw bu yàggee suufu borom day saf sàpp comme kaan boroom du mën a tëdd mm. du mën a toog mm. day saf sàpp comme kaani 24 heures mm. mën nga koo am doo tëdd doo toog li ci gën a soof nag mooy ngay kilifa toog ci ay ay nit sa sa sa biir bi yuuxu nga yuuxu muy yuuxoo noo xam ne soo ko déggee sax da nga naan ngelawal te fekk na xiw yi ci kolo bi la waaye du neex a wax nit mm-hmm. bu ko defee boobaa kersa ngay toogee am na ñoo xam ne sax dañuy daw nit ñi mm-hmm. ndax loolu ndoxu siiti ak émeri dëgg-dëgg ku mu téye danay tàggale ak sago tàggale la ak mbooloo ndax doo bëgg yëg dend ak kenn loo gën a wéet moo la gënal dëgg tàng dégg nga ko kon mel na ni tawat bu diis la bu sonal askan wi la te dama noppati ci wax ndax li ma ciy gis ak li ma ciy raj xam naa ko dëgg la bi nag hmm. damay wax nit ñi dëgg-dëgg hmm. la ma gënal dëgg-dëgg yàlla bu mu am hmm. waaye ci ni ma ko xaaxee mooy mënees na ko fa am na ñoo xam ne tey bala ñu am lu ma neex ñu koy wéqu mbaa ñu leen di jàppoo. Mm-hmm. du ñu mën a toog. bu ñu yegsee fan toog bala ñoo génn kër ga ñooy waxal seen bopp féex naa. nee naa soxna Mbayang. waaw nangu naa diwoo bari mbooloo. Mm-hmm. waaye ci résultat. résultat moo la ñor. chéri si bari nañ. benn ci man. Mm-hmm. waaye résultat jafe na. jafe na looloo tax askan wi sonn. ba tax rek euh, saa su ne daf may neex ma delloosi leen ki nga xamante ni mooy Serigne Bassirou Ndiaye xéewal baax bari bokkul ba mu ma ko waxee ci premier jour ba dama ko jàppe woon ay caaxaan waaye xam naa ni baax bari bokkul tabarkàlla macha allah boo ko weddee rek nga jël numéro yooyu ci suuf écran bi daal di dem ba këram daal di ko fay fekk ji su ko defee incha allahu taala di nga gis ndam ndax euh, ndoxum siti dina nekk loo xamante ni mën naa nekk ci biir yaramu nit diisal ay yaxam di ko metti te du ko jural okkutu waaye dalay leer ni kii ndoxum siti moo nekk ci biir yax yi ndax loolu mun na nekk wala mu tere koo am doom wala muy manifesté woo daal loo xamante ni ci biir lay nekk ba tey loolu it ba tey day am mm. day am waaye yaram wuy metti mm. ak yaram wuy yëy di ruux ak di jam di maas comme courant waaw boobu ngelawa seytaane ci bopp d'accord ndoxum siti ak émérite mooy am picc ci suufu boroom sax sax comme kaani di buccee ko comme ni fas yéene douze. waaw wa ilaa mu am picc. su boobaa ndoxum siti ak émérite bi mooy def lu mel noonu. may wax nit ñi ne fu ko fekk rek. suñu borom jëlee ko ci borom. ki nga xam ne ay tànkam day metti mm. ndiggam di metti mm. yaxu gannaaw ba di metti mm. di yëy di ruux di jam di maas comme courant bu ko neexee ba bu ko neexee songaat moo tax ñu bëri ñu naan bari bokkul. dëgg bari bokkul. jàmbaar jaa ngi nii. macha allah fa tabarakallah xam nañ ci dara may wax ne ba bii jàllee. ndax ñu ngi bëgg a yàgg. dañ ko war a jël. waaw boole ko ak bii. ban ci. bii. waaw dañoo war a ànd yii. dañ leen a war a boole. ndax bii. waaw cëwri dañ ko bii mooy cëwri. waaw. bii di ko wax gën ndaw bi bari bokkul. d'accord ndax dama ne ñaan bu doon jar bal. Hmm. ñu bare ba ñaan. dëgg la. waaye jëru ko. waaw dépassé lañ ciy jënd. d'accord kon ku ne man la. d'accord waaye bu ko doon jar ñëpp daw. d'accord waaye kii. Hmm. ñu bëri buñ sonnee dëgg. Hmm. fii la. kooku la ñuy jël fas boobu. fas gi mooy ko ëmb. d'accord toujours li ma leen di wax li may wax toujours naan la suñu bas nit nga wala rab nga ma ne hmm. rab lañ. waaye koo ko wax ci amul ak ci ko amul dégg. da nga wax xool ba xam xoolaat mayet gu nekk. waaye dama na naan am. nit a la ko jox. waaye rab moo koy defar. dama ko dama doon sikki sàkk ca commencement ba loolu mooy lan. dégg nga waaye leer ma nañ di benn. ma mu de jeex na tàkk kon loolu. Mhm. lii tax ma wax nit ñi ne leen faj yomb na. waaye ku mën a faj yombut. yombut ma ne la fas gii. mooy jigéen ju am toolu diggante nga xam ne dafa toog sees. waaw docteur yëpp ne dañ koy opéré. waaw dama la wax ne ma la takkalee fas gii. ci kattanu suñu borom. docteur fi naa xam ci yow dara. d'accord mooy ki am jafe-jafe pour wàllu mucc. wàllu mucc. te te te du ko opéré. te duñ ko dañ bëgg koo opéré. waaw fekkal ko bii. d'accord ma ne la am maa la jox. waaw waaye rab. rab moo koy defar moo koy defar. nit a koy joxe nit a koy nangu. waaye rab a koy joxe nit a koy nangu waaye rab a koy defar. loolu nag lépp bu xóot la. lépp bu xóot la. lépp bu xóot la loolu mooy lan. Euh, ndax dañoo wax ne kii nelaw. ne ci biir nelaw ñi di ko sol. waaw bokkut ak kii nelaw di xaaral rek di dem. dëgg la. sol googu ñu lay sol ci guddi gi. Mhm. moo la indil rab. d'accord. ndax rab yu bëri. Mhm. ñu ngi teg rab luy waaxu yi déedéet demiwul doon rek. Mhm. da nga da day nekk ak yow ngeen boo ko toog. nit ñëpp toog waaye amuñu sañ-sañu teg ko bët. dëgg la. ndax li ko yàlla may. waaw ba tax mu am ko. waaw ak ba tax muy ànd ak moom. ndax mandarga yooya. am na ca yéene ca des. d'accord dinañ ci ñëw ci faram-fàcce gi parce que lu ëpp ci bu ñu nee rab rek ñu yàpp jàpp ne luy yàqalaate la waaye comme émission bi dama ko bëgg a def étape par étape parce que xam naa ni saa su ne su ma indee rek askan wi ñëpp dañ naan gongo ndax dañuy wax ne lu bari ci seen i jàngoro tàggalikoon nañu ak moom ndax kii du Serigne Bassirou Ndiaye xéewal damay ñëw ci tànk yu metti tànk yu métti dafa am ay xeet yu bari yu ci am mën nga ma ci ñëw ci limal ci li nga xamante ni mu ko cee faj gannaaw ba nga moccalee saa yos ba fi nekk nii damay tal togge waaw soxna Mbaye xaw nga xam-xam dafa nekk lu xaw a soof. ndeysaan. tey tey melentaan wee di dox. Mm-hmm. loo xam. faxas rek mu dem baafaat. rëdd alif. waaw liif rek. liif gi rek. liif dong ngeen ci xalaat. te moom si melentaan wee di dox. soo doon ku jàng alxuraan. waaw dañu naan waroo koy wax fu ku jàngul tasuuf ne. ku jàngul tasuuf. waaw waroo koo wax fu mu ne. dëgg waaye melentaan wee di dox. waaw nit dana jël bakkanam. Mm-hmm. soppali ko bakkanu doomu aadama. Hmm? wax ju yéeme laa wax. moom moo jël melentaan wee di dox. waaw soppali ko bakkanu doomu ndax. ndax melentaan waa ngay dund. Mm. waaye rey nga ko. Mm-hmm. waaye kii wopp soo ko jëlee li ngay jëf. nga boole ko ak moom. Mm. soo ko defee ci moom mu jóg. man melentaan bi ñu rey. waaw kon yow melentaan da nga faj. boo ko liggéeyee bu bàyyi. day jóg. ci melentaan bi ñu liif. da ngay fekk ko ne laaj nga liifal ko sa bopp def ci la nga ci war a def boo noppee dugal ko fa nga ko war a dugal rek jox ko waa ji seet. ak xeetu jàngoro bu mu mënti doon. déet kon ma kon ma dugg nag. bu ma la doon faram fàcceel ma yan bu ma la doon nag day. xam naa ne am na ku ko seetaan daal di jóg tiit daal di tëb. daal na ndax kon daw wuti ji melentaan bu dee. <laughs> waaw ci waaye nag mais yan xeetu jàngoro la. du yaa koy wut man maa koy wut daa am wutin. waaw daa am ndax yi fi rab la. kon il faut que rawxaan bi lay jox. ak nam la koy joxee lay doon. danoo wax ne. li ma gën a jëkk a yéem. dañuy wax rab. sama yaay ne rab rab rab. sama yaay ne sama mag ne sama yaay. yow doo bàyyi bu ñu waxee nga naan rab rab. mu ko waaw mu ko waaw. Mm-hmm. mu ne ko tee ngaa bàyyi li ngay wax. Mhm. ñu xaw cee waxante moog sama yaay. waaw maa teg bët kenn néewu ma. Mhm. loolu moom dafa leer. gis nga keroog ba mu ko waxee loolu. bi jant bi laataan so. bi mu laataan tëri. gumbaloo nañ ko ñoom rab yi. dañ ko daal di gumbaloo ci tàng tàng bi la wax. est-ce que bi lay yàlla sama mag. mbaa weraat dañ ko yóbbu rek woo mat ba mu àgg mu sël fa rek mu jeex. est-ce que rab bi moo tax rab ku ko xeeb. waaw xamoo ko. ci tànk yi ba pare balaa maa ngi taay ci tànk yooyu. mooy nga xeetu tànk yu metti moom. li ëpp lépp ngelawal seytaane la. ngelawal seytaane. mooy dox moo koy mocc di mocc fëgg ci suuf ak ëf. boobu boo ko gisee mooy. waaw di ñaan la ca dàq. di ñaan di yëg ne ki ngay ñaan a ngi wér. ndax da ngay gis ne. Mhm. li koy dal. di ko metti day dem ba metti ci yow. ba nga di ko fëgg. pour pour mu bala. d'accord kon métti du yow moom ngay. métti ci boppam day yéegaat ci man. nga xam ne damay dem ba mujj ma jël sama loxo di ko tóor ci suuf. loolu moo ko indi. pour mu wàcc te ñu may moo ci ñëpp miin nañ ci man yu mel noonu. dëgg la benn ci man. dégg nga ko. kon ma wax la ne. Mm. loolu loolu lañ ciy tudd. jublu kon sant rek. ci wet googu fu fekk tànk yu metti ndigg luy metti loxo bi yu metti moom ci li ëpp loxo bi yu metti yem ci loxo rek kese. Mm. fa nga toog fa ngay toog mu wàcc ba bàyyi la moom loxo bi metti loxo bi metti nii. te sadd wala dara. waaw bëñ bu bëñ buy metti. waaw fu mu nga toog dañuy mocc mu ba da ñëw toog ñu mocc la fu ngeen ba nga ba tey du bàyyi tànk yi de. ndax dafa doon loo xamante ni dafa bari ci réew mi. te mhm. keroo dama la laaj benn laaj mbokk interpellé ma ne ma na ci gën a insister mu waxtaanal ñu ci tànk bi nga xamante ne dañ koo tuddee naatu xola ñi tuddee ko tànku ñay pied d'éléphant muy maanaam benn tànk bi nga xamante ni day jékki-jékki rek suur beneen bi dara du ko jot dina jot mag dina jot xale man gis naa xale boo xamante ne amagul vingt 25 ans te benn tànkam bi tol na ni man xamuñu lan la hôpital seet na analyser na def na lépp ñu ne mënuñu xamuñu lan la ñi naan sidit baa kepp dañ koy opéré wala dara. docteur dafa mënut a faj loolu. d'accord sidit baa kepp moom mooy dermatite ma rek. sidit baa kepp yàgg na ci ñoom. waaye duñ ko keppar ci mukk. duñ keppar jéeg gisaguma ko ñu. kii ba Amérique mënuñu koo keppar ci nañ ko baak ñun ñu ne la bari ba kut. <laughs> jàmbaar jaa ngi barki yàlla koo ci gis mu bëgg a wér. waaw ci kàttanu suñu borom. waaw du wut seere pour yow. waaye hmm. noonu ñëw seet. kon kon ku ko am mën na laa fëgg. wasalaam. ci 76 lay doon 391 74 63. waaw 76 391 74 63 wala nga def 78 140 99 08 78 140 99 08 tabarkalla macha allah numéro yi am na whatsapp. soo ko ci wooyee rek incha allah moo xam nga nekk biir réew moo xam nga nekk bitim réew ki feebar te nekk bitim réew bu mu am xel ñaar bu mu am sikki sàkk na ko fëgg dinañ def le tout pour mu jot ay garabam ca anam ba mu ko war a jotee te ku ko laal xam ni laal nga loo xamante ni mosoo koo laal bëgg a juddoo ba suñu jon yàlla tey alors waa tànk yi jube jóge nañ foofu waa ndigg dañ ciy laalaat tuuti ak digg ginnaaw ñu bari tey jii ñu ngi leen di wax bootal gën ñu ngi leen di wax wutal fas sàngam tàngalal suuf def ko sa diggi ginnaaw wutal buy waar def ko sa digg ginnaaw surtout suñu mbokki bitim réew yi parce que bu sedd bi ñëwee seen digg ginnaaw ak seen digg day àndandoo ne kàkk wala toogaay benn bi da leen di jàpp solution bi lan la ba ba tey benn baat bi la rek waaw day ñaari yëf nee naa la lépp luy tàlli ak a banku waaw day di roox li jam di maas fu yax waaw bu mu ba waaw bu kooku ngelaw seytaan la benn baat bi la dañ koy suur wala dañ koy mocc dañ koy dañ ñaan waa dañ ciy def ñaan dégg nga jox ko fas gi réer rek waaw. jox ko fas gi rek ak cawri bi waaw. waaw ma wax la ne. waaw xam-xamu rab. diis diis na diisaay boo xam ne. buñ la bëggoon a nettali tey. Mhm. dañ naan kii gënaaw dëgg wax. te bu ci desee ma bi léegi ci waatu jullit. gis naa koo xam ne ñépp ne woon day mhm. ñaankat. comme ñun séréer mm-hmm. Sëñ Tuubaa xëy na moo jàppale ci yu bëri mm-hmm. waaye buñ ñu aayewutoon yu bëri bu defatuñ ko mm-hmm. kon nga xam ne séréer amoon na est-ce que Mbàkke Balla waaye sëñ bi nag moo ñëw defar ñu ñun ñëpp dëgg la ba yu bëree bari ñu wàññi ko amoon waaye bari séréer dëgg-dëgg te ceet dooy am dëgg-dëgg da ngay xool garab gee taxaw waaw su ma la ko waxee da nga werante ko waaw waaye boo jàngatee suuf bu dee alxuraan da nga xam ne dëgg la waaye boo jàngut suuf da nga ko werante man du ma werante te bu ci dara desul rek macha allah um, min naa ne bi léegi nit kuy dund nga ne ko yow mm. dem leen diw mii mm. ñetti fan laa la may benn fas dana dee ci seen kër walla wala génne garab ga mag daanu ca koñ wa kër ga dëgg seeta loolu dëgg la mu ne ko ha mu ne mm. ko ñetti fan lañ la may bu fa garab daanoo sa doom jóg bu fa fas dee sa doom jóg risques ñu defi caaxaan. daa mm-hmm. àgg fanaan wër seet garab gi la teel garab gu ponkalam guy ndegaan jang jaaxaan. ñu xëy dem wax ko mu ne leen jeex na dana jóg ba fi mu ne kookaa nga nekk soxnaam am jàmmam. yéen lan moo tax ngeen bëgg guy. Ah, guy moom bëgguñu ko moo ñu bëgg. moo ñu bëgg. d'accord ndax ginnaaw daa lewet. waaw te rab ci li ëpp dafa ñeme yooyu. lii rek yàlla yàlla moo dogal rab mel noonu tey tey su ma la ne woon. waaw rab day to nit day toxu comme garab. waaw nga ne déedéet. d'accord nekk ci dëkk bii soxna si fa nga nekkoon tey nga toxu. toog fa bu yàggee garab comme guy mooy ñëw ci sa kër gi taxaw. Hmm? soo dofee nag yaakaar ne garab la rek yem ca déedéet sa garab ga woon fee mu rocce ku ndànk ñëwaat taxaw fu la wet ndax caawa gi mu yor sa diggante yaa ak moom loolu rek ko ko mën a may. moo tax dañuy waat ba fii mu taxawaat fi doon garab moo tax ñi xamul dañuy dugg ci kàmb yoo xam ne duñu xam lu mu doon bëgg koo lijjanti duñ ko mën lii rek la waaye xam-xam dëgg-dëgg yombut dama leen di wax ne ñun ñëpp a ci yem suñ fexewoon ba jël benn mm. jël suñu maam mënoon mm. téye ko mm. wallaahi des nañu dégg am waaye nag naa mën lépp loolu moom ku ko jagoo coono ñëwal na la yàq nañ ko ci xam jël ah. xam-xamu cosaan bi teg ko ne daal di abi ji koy tubaab bi tabarkàlla macha allah te la fi maam yoroon ba tey mi ngi fi boo ko weddee fëggal sëriñ Basiru Ndiaye euh, nga fekk ko caaro euh, yi boor yi hôtel Charlie wala Mbour wala Thiès wala Kaolack wala Touba tabarkàlla macha allah di nga xam ne lépp dëgg la sëñ Bas wàllu rab nan lay def ni yàq leen parce que dégg gis naa ne loo maîtriser la te ku la fekk ci bureau ba du bokkee Basiru Ndiaye bii lu ko waral foofu palaasu rab la lan la. waaw ah, xam nga doomu aadama. dégg mhm. dëgg góor dëgg-dëgg sax du waxtu wu nekk. Mhm. kanamam gi muy yor di wax ak yow su mu mel noonu du yoon. dëgg la dangaa war léeg-léeg nga soppi ko mu mel ni. Mhm. kii du yow. mbaa ñuy naatale yow laam du yow. su boobaa nag dangay xam ne kii. am na feneen fum ne. dëgg la foofee muy ne ba soppi ko ci mm. kanamam wala ci mm. leneenam ci diir bu gàtt sa diggante yaa ngi moom da ngay daal xam ne xam nga fa wallaay dëgg la su boobaa nag ña ko ko def suñ ko gënee jege rek gën ko ñettamal rek day am jafe-jafe mm. ñu bëri nañ mel ne ah yow li dangaa naqa deret suñu wax daa naqa deret waaw fekk na déedéet du naqa deret da ngay ah, toll ah, foo xam ne xabtal lay doon ci yow day mel ni d'accord du la neex ndax man bu ma sañoon wax dëgg yàlla ginnaaw maa woo nit ñi di ñoom déggante ci jàmm alhamdulilah bu ko na jot li mu bëgg. <laughs> buñ ko weddee nañ ma laaj ku yaakaar ne man ak moom wax bi jafe yomb na nii ndax plateau bi def nga erreur bu ñu rombee plateau bi day doon leneen doon beneen nit léeg-léeg nga woo ko mu lay wax wax yoo xamante ni da nga naan noonu kii di ki ma doon waxal waaye nag dama koy comprendre parce que yàgg naa am cas yu mel nii te nag euh, ku ànd ak dara dafay feeñ ci say kàddu ak say jëf waaye sëñ Bas nga ñëwal ma rab rabu cosaan dafa am ak yi ñuy wax rab yi parce que ñeneen ñaari façon rab moo am. rab bi dugg nit ki ak ki nga xamante ni seen rab rabu cosaan la am ay xam ak lépp sëñ Bas ban la ci gën di faj. déedéet yow moom loolu waxin la rek waaye rab benn rab bi rek la. waaw ah, benn rab bi rek la. na moom ngeen mën nga ko àtte ñaari àtte yow waaye nag bu dee ko xam rab moom benn rab bi rek la. mais ki samp ay xambam. Ah. teg ko di ca def ay tuuram ak a def yëfam kooku dafa bokkee ak ki nga xamante ni nit la ku amul xàmb amul dara mais rab dugg ko waaw xam nga ko rab dugg moom rab rek la dugg d'accord buñu lay ñaanal dañ lay ñaanal ci rab rek d'accord da nga naan ki nga xam ne daa am kër waaw ak ki amul kër ah, ok wax nga dëgg noonu lañ koy tuddee bu dee ñun ñooy atte ki am kër ak ki amul kër d'accord ndax bu fekkee ki am kër la waaw bu ko rab duggee dañ naan na dem ci xam bi maamam ya dëgg ñu defal ko nangam dëgg la mu wér ki amul kër ki amul kër boo ñëwee ci yow yaay seet noo ko faje yaa ku am kër ki am kër ki amul kër yëpp boo mënee rek mën nga yëpp. yaa koy teg ci gën ndax kër ga yow yaay wut kër di ko dugal fii. wax dëgg yàlla kër ga nga koy dugal kay. soo ko mënee kay wax yàlla ku faj daf ba donc kër gaa nga fa. waaw kër gaa nga fa. mooy bureau bi. waaw déedéet foofu. bokkul ak bureau bi bokkul ak bi dama laa wax ne kër lay am. tuur boo ko déggee ñuy wax tuur. waaw loola moo tax ñuy wax kër. d'accord temps baa ngi dem euh, rab lan lay def ci nit ah ci ëpp de Sénégal moom yàq na ko moom. dëgg la lay dëgg yaa ngi fi tas. Mm-hmm. nit ñaa ngi reyante léeg-léeg. Mm-hmm. defante loo xam ne luñ ci xam luñ koy defee. wëlbati ko di ko réccu rek. nga gis jigéen jël doomu nawleem bi ci kër gi yóbbu ne deqeet ren di kon loolu rab mën na ko def. mën na ko def de. allahu akbar jikkoom la jikkoom la. mën na ko dugg la la ci lu bon mën na ko xabtal ci lu bon. loola mu def ko dëgg la loolu mën naa ne dëgg la waaye saa yoo defee ba noppi nag waaw day rocce ko mel ni woon moom nga réccu kooka réccu dëgg la waaw te kooku mën naa dal ki nga xamante ni amuñu kër danaan amuñu rab kon rab ko lii te fekk booba rab a ko dugg ba waaye xam nga fi mu ne nii waaw ku ko defee dof la ñuy wax day dof dof lu moo ko tey mm. waaye rab du lu ñuy xool naan ko ni nga ko def ni di ko ate dëgg la lu ko nuy ate looloo tax lu neex a xam waaye bëri na jë daf jëf yoo xam ne mm. nit kese kese rek du ko def d'accord am na jëf yoo xam ne boo ko seetloo xam ne nit kese defu dëgg la rab ci ñàkk am doom ak ñàkk mën a am borom kër lan lan lañ koy faje déedéet ndax da ko faj la ñuy wax waaye boo nee lu ñu koy fajee rek kenn du ñëw ci man su ma la ko waxee. Mm. kenn du ñëw ci man. ay ah, ndax lan. da nga naan luñ koy faje luñ koy faje waaw kay. ma ne la am na pajam am na fi. waaye nag boo nee wax ma wax ko kon ku jóg rek da koy def toog waaye nag ginnaaw damaa bëgg am ku ñëw ci man dama naan la am na fi ku ñëw ñu defal la ca ñaan. d'accord kii bëgg am jëkkër. Mm-hmm. boo ñëwee mën naa nekk. kii bëgg soxna mu te ko bu ñëwee te am xaalis. mën naa nekk ndax góor it boo ko ne mën naa la defal lu may soxna te amul dara mm-hmm. da nga tooñ. ndax ko ñëpp fay daw ñëw. d'accord waaye nag yoral dara. yoral dara te foo dem ñu dàq la. d'accord soo ñëwee bu ñu ñaanalee mën na am jàmm. d'accord am nga mën nga am soxna. donte raba a téye. Mm, boo donte raba ku téye. mu nga ki nga xamante ni itam ñàkk am doom bari na lu muy gàllankoor jigéen rab dugg ko tabaarkàlla macha allah muy gis baax lu bari wala bu àndeek borom këram mu tuuruwaat wala saa yu dara nekkee ci biiram itam mu tuuruwaat yooyu expliqué woon nañ ko ci suñu émission bi passé ba tax. ba man a laajee ne la parce que yenn sëriñ yu ci bari dañuy wax ne am naa ci ay turandoo waaye yow da nga taxaw ne man gétt laa ci am nga ñëwoon ci loolu. loolu it moom li ma la wax rek. moom fu ñu ko fekkee rek jàmm la am. d'accord ki mënta am doom. Mm-hmm. moom bu soobee yàlla boo ñëwee ñu defal la nga am sa doom ci kàttanu yàlla. d'accord ndax boo seetloo ka mu dal. waaw ci li ëpp biir ba tàngoor la lay bari. dëgg la. day gëm fari teg ca. Mm-hmm. muy am jafe-jafe lool. Mm-hmm. mën naa dem dem ba jëkkëram sax di ci ba gisee ci ñàkk fexe la koy def ci lay ëpp xel mi jaxasoo fu mu toll mm-hmm. dégg nga ko mm-hmm. am na yoo xam ne siti lay doon am na yoo xam ne rab la waaye ñaar yëpp fu ñu leen fekk mu jóge fa ndax jigéen ñi mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu géntee sëy seen sëy doom tuuru ndax booba faru rab lañu am faru rab bi góor gi bu sëyee ak moom ba noppi faru rab bi ñëw sëy ñoom faru rab bi bu sëyee moom ndox moom moo may mu wàccee day tàng dëgg la tàngoor woowee. mooy lor kee dëgg la. kooka daal di féete boor. moom mu des fa. dëgg la di sëy ak soxnaam. ndax rab mën naa tee nit ki am borom kër. <coughs> rab yàlla ëpp na loolu. rab kay sax daf koy def waxuma laa am borom kër. d'accord rab kay li mu def ci nit amul. donc ki àndandoo sonal ki rab sonal mën na jël numéro boobu ci suuf écran bi fu ci sëñ Bass nekk rek dana la jox adresse bi su ko defee nga fekk ko fa. mu dimbali la ci li nga xamante ni mooy wàllu rab waaye sëñ Bas ni ma la ko xewoon bii passé yaakaar naa ni faj gàcce doy ndax ku sañoon ku ne fi mu ne di faj gàcce biñ ko fi indee am na ñoo xamante ni contacté nañ la nu nu mu fa demee loolu ci faj gàcce. Ah, dama la naan nu ma ko waxee ci woon sax ne moom laa koy tuddee faj gàcce wala lan wala teraanga. teraanga waaw. ndax dama la naan yow teraanga laa lay tuddee. waaw wala yow faj gàcce laa lay tuddee. dëgg la. ma wax ni ñu ne leen mm. faj gàcce dafa am teraanga dafa am mm. kon ma wax ne ana teraanga ana faj gàcce kon ana teraanga yooyu lu am dëgg la su ko defee su àndeek dogalu yàlla waaw su ko borom amee santaat kon booba buñ koy doon àtte tey dana naan jaaro baa nekk nii jaaro bi moo nekk nii waaw ab jaaro lay doon waaw waaye day ànd ak gàllaaj xaatim buñ liggéey bon ko di ko ëw ko. d'accord bu dee ko dëkk bitim réew toujours li ma leen wax rek fan yii yëpp daanaka sonn naa ci waaye nag sant yàlla. Mhm. ndax loolu lañ ci bëggoon. Mhm. bañ ne teraanga ak léegi nit ñi yittewoo lañ ko. dëgg la ndax <clears throat> doon na loo xam ne soo ko takkee nit ñi safoo ak yow. Mhm. nit ñi bëgg la. am ci yow yëg-yëg. wolof yaay nee na kaay bëgg ma moom yombut. waaye maa la xool bëgg la sama bopp. dëgg la kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara wallaay. kon jaaro bi. bu àndeek ndomba gi. waaw yéene naa ko ñëpp. ndax man hmm. li tax indiwuma yëpp damaa faral di def ñaare dañ ma naan sëñ bas. Hmm. yow lan moo tax yow duñ gis bagaas hmm. duñ gis dara te nga ne borom xam-xam nga. te ku ñëw di ñaan lu ne ñu wane ko. te yow doo wane dara. mu ne leen xam-xam bopp la. la du li ngay wane. gis nga ko. ma ne leen xam. ma ngi nii ci bopp la. secret boo ko wanee sax boo tuddatul secret. kon su boobaa. Mhm. xam ci bopp lay nekk day am yoo xam ne yëpp duñ ko fësal. dëgg la waaye dugg ba ca biir. Mhm. nga xam ne fii laa ci taxaw. la waaye jaaro yi. waaw suñu borom dafa dogal ni yitte woo ko lool. Mhm. te gis naa liñ ko songee. dëgg la kon seen yitte la. dëgg moo tax ma di ko seere. dëgg la dëgg la muy lu am solo. dégg la waaw nga xam ne mooy faj gàcce. soo ko xasee am teraanga rek. dëgg la jaaro bi itam. ak ndomba gi. waaw day dund comme doomu aadama. dëgg la day dund. ñu wax la ne. Mm. soo ko takkoon lu ma ñaari at. waaw mbaa ñetti at mbaa juróom. nit ñëpp daw wut la. nga dem ba yéemu gis muy wàññeeku. waaw newaata mu mu mm. ah bëgg naa ko ma yokkalaat. dëgg la. te bàddali kat yàqut tool. Mm-hmm. bay ba mu set. Mm-hmm. léeg nga dem seeti. waaw ñax goo ca mën a buti buti ko ca dëgg la du yàqu tool déedéet kon nii la dëgg la soo ko takkee mhm. saf nga doom aadama yi waaw réew ma nag la gën a baax ndax bitim réew waa bitim réew waaw ndax wecc ci bi moom jafe li tax de moom la il faut que ñu waxtaanee kumpa loolu lañ koy def <laughs> dégg nga ñaar dégg nga mënta mi ni may ni may ni may ma wan ne ma dama dañ kumpa na ma kumpa la naa naa ci génn tranquillement te man bokk internet yee ma ñor waa baax na ay ca dégg nga dama cee bëgg rek ñooñee itam ku ma ci woo rek danañ ko mën a ñaaroo ndànk ba ma wax ko nam ko war a doxee incha allah te sa dara mettiwul nag tabarkalla macha allah waaw wax dëgg yàlla de am mm. naa am naa xolu yërmale waaw bu ma yéenee ñëpp nag macha allah loolu xam naa ki dara ndax it sama émission du ma tooñ kenn dëgg la man naa maa ne sëriñ si nii sëriñ si nee. waaw waaye déedéet. déedéet da def sa liggéey. nañ fexe teg suñu bopp ñun ñëpp ci yàlla. dëgg la xam ne njàmbaar gu am. Mhm. billaahi bi ci loxo yàlla jógee nga jeexal. wallaahi wallaahi azim. sunu borom rek mooy sottal lépp teg ko fi. dëgg la doylu safuñu. Mhm. ñu safoo ko. bul fëgg sa dënn bul yëkkati sa loxo te bul bàkku ni mën a yëf yi du kenn ku du sunu borom. waaye nag di nga sabablu jaar fi nga war a jaar am noo xamante ne noonu ngay comporté woo ba tax loo ñaan suñu borom mu may la ko yaakaar naa nag li ma gisagum ci moom tabarkalla macha allah euh, yàlla defal na ko loolu ki suba rek mbokk ngi ma woo li ma wax ne difu diw daf maa ñaanal te gisuma li ma ñaanal ma ne woon naa la ko wax ma ne ko ñaan nga wax waxoo dem jëli waxoo dem foqati ji te kuy ñaan mën nañ laa may comme mën nañ laa xañ ndokk yàlla bi nga xamante ni nag sëñ bas yor na jikko joo xamante ni man bëgg naa loolu mbokk yi fëgg ko dem fekk ji ko tabarkàlla macha allah ndax ni nga xamante ni noonu la mel waaye nag bu leen ragal des fois day ciubu euh, sëñ Bas ma ñëw ak yow ci li ñuy jeexalee daanaka mu jëm ci wàllu boole ay nit moo xam sa njiit la moo xam boole sa yàgg sa soxna rawatina ki dem ba bitim réew soxnaam bëgg koo war ak ki dem ba bitim réew boroom këram bëgg koo war léeg sax ñu dem boole ji la tubaab bi tubaab bi teg la ay daan ñooñu yaakaar naa ni teg nga leen foo xamante ni ba beral leen loxo seeni mbir duñ koy lijjanti. waaw ba tey xam nga dafa am loo xam ne ma jégglu jaad jaadaat ñëw ci yow. waaw dafa am loo xam ne damay am yéene jaaro bi yëpp am ko. waaw ak li àndal. dégg may wax ne am naa yéene ñëpp am ko. may wax ni indi leen. Mm. te souvent am lu ñuy lu ñuy nattable. lu ñuy te lu am solo ngi noonu ku am ngërëm ak am solo ci ñaan tarbiya lépp loo gis tarbiya am na ca solo ak lu mën takka dog soo laqee sa ngërëmal bàyyi ak sa ngërëmal ñaari waajur yi ak ki yàlla boole ci àdduna muy muy muy tarixa mm-hmm. ngërëm yii de ku ko làq ci li ëpp bunt boo fëgg rek ci li ëpp yàlla mën na la ko ubbi. dëgg la. waaye kenn kenn gërëmut. ku mu gërëm. li mu ma du ko dal waa mën naa yeex. dëgg la. kon damay wax ni ñu leen. li nga fekk baax. Mm-hmm. bokkut ak li ñu la mën a fiyal jox la. dëgg la nee naa sér ku ko xool ba ñaam baax am ca. ku ne xam ne lii moom ñaam baax la mm. waaye bokkul ci service dëgg la kon ñaan mm. buñ koy ñaan mm. kenn du laaj ci ndax mën na ko waa wala déet xanaa mu def rek mu të waaye ci dëgg dëgg ci wax dëgg yàlla ci li ëpp ku ne ñaan kat laa te doonam séeréer nit ñi daan ko gëm ndax dañ naan ko ñàkki caaxaan la dëgg la nañ ko ragal sax <coughs> kon dañ la xam moos nañ jël jom fit ngor jox ko liggéey bi jox ko akam ndax ñu mën caa jël lañ gën a bëgg am na solo kon soxna si li nga wax ko am na solo fàttali leen ko 76 la 391 74 63 wala nga def 78 140 99 08 mi ngi euh, yi euh, ci hôtel Charlie mbuur Thiès euh, Touba ak Kaolack yépp daf fay nekk ki nga xamante ni mooy Serigne Bassirou Ndiaye xéewal baax bari bokkul soo ko weddee nag demal ba këram nga xool tabarkàlla macha allah kenn woowagu ma ne mënuma ko jot kenn woowagu ma ne ma dama ko dugalal xaalis ba pare jotuma ko waaye kenn woowagu ma ne ma itam daf maa ñaanal te dalu ma te yaakaar naa ne ñu ngi bëgg a yàgg nag te digga diggante bi rek tabarkàlla macha allah mënoon na fee def defoo waaye fi ñuy jeexalee mooy ni ma ko waxee rek ki dem ba bitim réew war soxnaam wala soxna si dem ba bitim réew war borom këram te kenn doyalu ci sa morom nga war leen a delloo nga booleel looateleel Martine nag taqaleel ma ko ki bëgg a boole ak njabootam ci biir kër gi ndax wax nañ ne ma desatu lekk googu liy wadd ci lekkukaay bi loolu moom li nga ciy liggéey yéeme na trop ñu ne ma ma bantuwaat nga baaxee ko waat askan bi waaw damay wax ne nag ah. loolu da ngay bàyyi mu nekk secret ci man ah. ndax nar nga ma cee sonal ndax ku ñëw loolu may laaj ndax fi ne nii yow loo wax. mais njaboot gi lañ a boole man man askan bi laa fi nekkal man duma ko bàyyi. xam nga dafa am galaaj yoo xam ne soo waxee noonu. waaw su ma xamee beneen itam duma ko mën a def. booba rek ngay def. ah nooy def que booba daa wér. ba tey rek waaye te lu boole njaboot gee ñu itte. waaye mu amee beneen yoon nag xam nga yoon dañoo war a bari dégg nga boo mënee nag ku bëgg a dajale waa këram ñu doon benn. loo ci xam mu xalaat rek. léegi nag bu ma gisee ku ñam beneen. waaw. ma indi beneen boobu. kon jërëjëf te émission bii di ñëw. Mhm. dinaa indi beneen boobu ndax xam naa ne am na ku ñam beneen. incha allah daf ma ci waxagul lu ma leer. jërëjëf mais nag comme bii la ma joxagul. waaw moo taxoon ma sax ci bii. jërëjëf mais ay ca baax na boo njaboot. may wax nit ñi ne leen. waaw. <coughs> damaa bëgg a déggoog sama waa kër. waaw. dagan na julit la njulit la lislaam la. Mm. kon ku ne sañ na ko. Mm. nañ ànd. Mm. waaw léeg sax ñu woo ne ma. damaa bëgg a tas sama diggante ak sama jëkkër mhm. ma ne ah man de man naa lépp waaye man lépp def lépp dañ koy aaye mhm. ab julit sañ te tas mhm. diggante julit ak morom ja wala nit ak soxnaam dëgg la du yoon dëgg <clears throat> wala nga ëmb ñëw ne nañ ma ko déeneel ma ne julit da sañ loolu yooyu yëpp damay wax déedéet ndax xaalis toujours nañ may xel nañ koy jëlee ak fan ko yóbbu ginaaw ci biir njaboot la jëm naset rafet ndax alax ëllëg bis la ba ñu bëri yaakaar ne du am mm. ak duy jaas te du jaas mukk kon nañ seetal mm. lu ñuy def suñ digganteeg mbokki jullit yi ñun nag ñaankat mm. ñin gën a war a yërëm bitim réew ci la bokk dëgg la billaahi sonn nañ lool ci coono yoo xam ne kiimaan la la am na ñoo xam ne junni rek nañ ko koy dugalal. Mhm. dootoo ko mën a dégg. dëgg la <coughs> te yaa wax ba mu xam la. Mhm. yaa wax boo am ci yow yaakaar. Mhm. ay waay nañ góorgóorlu ci ci suñu diggante ak yéen. nañ ko def baa ngi jeex. lii de ci loolu moo la wax ci boole njaboot ak uh, ki dem bitim réew. ni nga ko waxee borom këram ñu bëgg a warante yooyu yëpp am na yooyu yëpp am na yooyu yëpp am na sa jabar dellu siwaat ci say loxo wala sa jëkkër dellu siwaat ci say loxo am na d'accord asma am na. d'accord tension am na. estomac am na. góor gu manqué kàttan am na. Mm. góor gu manqué kattan mënalul soxnaam dara. Mm. am na jigéen ji manqué kattan. Mm. mënalul jëkkëram dara. am na ndax ñëpp dañuy manqué yëg-yëg. d'accord su amee rek am na. jàngoro góor. am na. muy soppis mm. muy góor muy jigéen am na mm. ñu bëri soxal nañ ca bitim réew mm-hmm. ci yu mel noonu yóbbu docteur ak def yëpp mm-hmm. maa leen koy aaye d'accord ndax siiso mm. xajut ci kër déedéet sirit boo ci ne na mit nga la borom wooy <coughs> ndax li ma gis mooy <laughs> li tax docteur metti waaw il faut nga gis kuy jàng dëgg la mm-hmm. déegu baree bari stagiaire jàng tu xamaguñ dëgg la kay rey dëgg la ay dëgg la ndeysaan kon am na yoo xam ne moytu leen ko. dëgg la ak genn. Mm. kenn du ko jël di ko jox siiso ñu di ko jar rappati xaju ca. su si di ne tàppi rek war a dugg. musiba loolu nag dañu wax ne ñaari fan. Mm-hmm. soppit waaw jàngoro góor. waaw loolu ñaari fan. ñaari fan nga faj. incha allah du ma bari nag du ma koy ñemee di wax. waaye léeg-léeg ma tàng rek waaye ñu ngi jéggalu dëgg la ndax bëggu may wax léegi léegi macha allah léegi li ñuy def rek mooy jox rendez-vous gars yi fàttali leen rek Serigne ñu Ndiaye xéewal baax bari bokkul mën nga ko am euh, ci 76 391 74 63 wala 78 140 99 08 bu ko defee rek nga daal di koy fekk euh, fi nga xamante ni mooy Caaroy ci hôtel Charlie Kaolack Mbour Thiès daf fay nekk diwaanu Touba itam daf fay nekk tabarkalla macha allah moom daal il nga woo ko rek waaye teraanga mi moom tabaarkàlla macha allah ne ko ñëpp uti ak faj gàcce ndax dafa nekk ñaari combiné yoo xamante ni lakk na dëkk bi ci émission bi passé waaye nag damay wax ne nit ki lam lay wax ne la moom lay ñaanal na fekk mu nuru loola te tabaarkàlla macha allah boo ko fekkee ci diiwaanam wala nga fekk ko ci zone am di nga xam ni kii laal na teraanga laal na faj gàcce sëñ Bass maa ngi lay jaajëfal di la jox rendez-vous incha allahu taala euh, beneen yoon mën naa am sax bi di ñëw parce que man dama lay bëgg di la am semaine su ko defee ñu dellu siwaat rek indiwaat yeneen xeetu baax baax jëmale ko ci askan wi waaye wàllu noob itam mbirama <clears throat> kon jàmm ak jàmm wala waaw jàmm ak jàmm xanaa di santaat yàlla bu baax waaw di ko gërëm moom mi nu boole fii tey mu ñëw boole ba anu fi kon yàlla jàmm yokkoo lañ wax mm-hmm. ndax bu fekkonte ne metti na lool mm-hmm. dee su ko sañ mm-hmm. waaye nag lépp loo xamante bi yaa ngi ko te kii yoon di wax nit ñi ñu gëm ko santaat yàlla ci loolu wax ak a jafe ñu dégg na kon ndokk ba ñu déggalee ndax bu ñu déggalu doon ñu mën lii maa ngi santaat doomu aadama yi mm. di santaat askan wi mm. di ñaanal sama bokki ñaankat yi ak man ñun ñëpp yàlla nañu yàlla may ndam ndax buñ jógee di wax buñ sañoon ku ñëw ci noonu am ndam kon maa ngi koy ñaanal ñëpp ci internet bi ñun bokk yëpp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jaajëfal ko moom ci disponibilité bi ñëw teew fii ànd ak ñun jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne moom la ñu àndaloon waaye jaajëfal mbokki internet yi ndax bu ñuy sonn yéen a tax leader bi ñu doon ci wàllu internet yéen yéen a ñu ko def kon saa su ne bu ñu sañoon lépp loo xamante ni daf leen di jëmee kanam rek dañ ciy dox. waaye léeg-léeg nit ooma ne ma baal ma de dama la doon ràññee enseignement ki sëriñ diw bu ñu ma baalu jamono bi moo tëddee noonu tolluwaayu ñaankat moo tëddee kon duma ko bañal kenn mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amandillah jaa ngeen jëf